joxe leen jébbal leen sëñ Bamba seeni tum du mu agan param tuy lamb tuy wey ba teggi ko te way kadu wa daa way Mustafa amut la jamba way asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki julli di mbokki bi yéen ñi ñuy seetaan ci seen acte point com ñu nekk fii tey ci mbul ci seen émission bi ñuy tuddee kuwal wal mburu tudd ab dëkk ñu dëkk fii ci mbul nag fekk si fii ñi nga xam ne moo nekk fii ci mbul mu di chef di village bi di sëriñ Basiru Jaxate xam naa dañ koy jox mu nuyoo ñu daal di koy présenté ñu daal di tàmm sëñ Basiru bisimilah ñu jox la nga nuyoo eh, jërëjëf euh, sëriñ Saliou leen di nuyu ci déplacement bi ngeen def ba ñëw fi ci Touba Mboul euh, Touba Mboul situé ci euh, wàllu Saloum Mbàkke Bawol euh, nekk dama ko Mbàkke trente kilomètres ñu ngi leen di ndokkeel ci ñëw bi di ko rafetlu jërëjëf. sëñ Bass yaakaar naa yàgg ngaa dégg mag ñi di wax naa ku war mburu tudd ab dëkk loolu loolu ci mën a fàttali ci baat boobu. mburu euh, tudd ab dëkk euh, comme li ma mën a wax foofu mooy euh, dama koy màndarga ci dëkk bi ngeen ñëw tey muy dëkku cosaan muy Touba muy dëkk boo xam ne nii. Euh, Cheikh Mamadou Bassirou Mbacke 57 bàyyi fi doomam di ñu wax Serigne Mountakha Mbacke muy actuel xalif général des Mourides ñu demee ba 1957 la ko may dëkk boobu moom Serigne Mountakha Bassirou moom mu fare fa euh, ba boo bëggee ma gën laa joxal ay leeral ci Touba Mboul. waaw comme ni ma la ko waxee rek. Seexul euh, Xaddim euh, digaloon na ay doom maanaam ñu sanc dëkk yoo xam ne nii euh, dañ fay liggéey di fa jaamu yàlla comme ni ma la ko waxee Touba ci dëkk yooyu la bokk ndax Seex Bachir sanc na dëkk yu bari ndax mi ngi njëkk a sañ ci euh, dëkk bu ñuy wax Daaru Pakacaar eh, ci jamonoy 1926 euh, mu sañ ci Daaru Salaam jamonoy 1927 Daaru Salaam mi ngi ci wetu Kayal sañ ci Touba Mboul jam euh, jant sañ ci Daaru Salaam Typ jamonoy 1928. sanc Touba Mboul jamonoy 1929 dem Bilki Cerno Boussa sanc ko jamonoy 1930 waaye bu dee Touba Mboul kooku nga wax bi mu ko sañcee itam sunuy waajur mën na ma wax ne euh, bokkoon nañ ci ñi jiitu maanaam sunu magi baay ak yeneen mag yoo xam ne ràññee woon nañ leen euh, nekkoon ak ñoom seex ci seex seex mu Basiir ci dëkk ci ci maanaam diwaanu Touba bi loolu sax euh, yàlla dogal na itam mu loon ci sunuy waajur ndax sun sun ñaari baay yoo xam ne nii ñoo ko waajur bi ñuy jural boppam seen ñaari ndey ñoo bokk ndey ak baay ñaar ñoo ñoo jiitu ci dëkk bi te mu dénk leen ko kenn ki ñu ko koy wax sëñ Balla Soxna Diop euh, yor ko 1929 ba 1945 euh, beneen rakkam bi mbokkal ndey ak baay Mor Xari Diop sëñ Mor Xari Diop yor ko 1945 ba 1966 euh, sama baay bi nga xam ne mooy sama waajur sëñ Balla Jaxate nga xam ne Euh, mook ñooñu seen ñaari ndey ñoo bokk ndey ak baay yor dëkk bi 1966 ba 1989 bi ñu demee ba 1989 itam sëñ Muntaxa loolu mu wéyal ko ci ñoom euh, def ci itam yoo xam ne nii gis nañ ci ne maanaam jàppale nañ ci baax ndax waxoon nañ ci ba mu koy joxe boobu gën nañu nekk xale mu wane ci biir mbooloo mi ne moom laa jox dëkk bi di wéyal li ay waajuram defoon wane it ne maanaam ku ko jàppale ma jàppale ko ku ko jàppale ma jàppale ko loolu moo waral tey gis nañ ci suñ bopp ne yëg nañ suñ bopp ne 1989 bi ñëwee ci dëkk ba léegi ba tey jii may wax yow ci euh, février 2018 suñ borom nañ nañu ci dëkk bi ci yore bi ma suñ def benn erreur ñu ngi sant yàlla bu baax di sant yonent bi di sant Serigne Touba di sant Serigne Bassirou ak Serigne Mountakha moom nga xam ne moo ñu ko jox te jàppale ñu ci wàllu baatin ak sayir loolu laal man wax ci Touba Mboul muy dëkk boo xam ne itam eh, gaa ngi fi mbay maa ngi fi maraîchage bi itam bëgg nañu dox ma malgré ndox mi taxul mu neex na mu war a neexee muy dëkk boo xam ne nii itam dafa isolé isolé mooy neexut a ñëw. ndax mi ngi situé ci diggante Mbàkke ak euh, Gosaas euh, parce que diggam ak tali bi lay yóbbu Tiib déjà quinze kilomètres la diggam ak tali bi lay yóbbu euh, Gosaas déjà quinze kilomètres la diggam ak tali bi lay yóbbu Njenne Lagan déjà sept kilomètres la muy dëkk boo xam ni dafa frontalier ci dans la région de Diourbel parce que boo demee ci sow bi diggante Gossas bi nga xam ne 15 kilomètres la déjà moom occupé na les 9 kilomètres nga xam ne Gossas rek 6 euh, kilomètres yi la dese pour nga dugg Sine Saloum soo demee ba Njenne Lagan itam ba wuute yi nga xam ne moo Touba Mboul 7 kilomètres la déjà da nga daw ay euh, cinq kilomètres. dèjà yoo xam ne yëpp yu mat sëkk yoo xam ne yëpp ci Touba Mboul la nga xam ne deux yi wala un virgule yi nangam yi mooy doon ci Ndiéné Lagat donc mën na wax ne dafa situé dafa situé ci milieu boo xam ne nii dañ ko dañ ko wër dëkk yi am euh, yoon yëpp dañ ko wër loola tax na euh, danañ gën a sàkku encore ci président de la république mu bàyyi xel ci dëkk àll yi rawatina dëkk bu mel ne Touba Mboul léegi ñëw ci développement mbul ci wàllu fi mu toll ci développement ci wàllu loolu nga wax courant yeeg wàllu développement ci wàllu euh, ban ban développement waaw wax naa la ko comme nee naa la dafa isolé. parce que ah. courant boobu euh, man jamono yi ma nekkee président conseil rural bu Touba ndax yor naa ko 12 ans booba yàlla dogoon na amoon nañ ci ay jéego sax yoo xam ne nii. Souleymane Ndéné Ndiaye xam naa da nga ma da ma laaj ci PDS sax jéego yooyu mën na wax ne doxoon na ko ci ba 4 kilo 4000 mètres yi nga xam ne waroon nañ koo def ci Touba Mboul 2000 mètres yi rek lañ jot a def 2000 euh, mètres yi biñ ko defee itam euh, ma desaat na yeneen 2000 mètres yoo xam ne waroon nañ koo def depuis loolu itam yokku courant bi yokku mën na ma wax ne sax dafa gën a arriéré parce que poto yi ñu ci def yëpp dafa dafa daanu. actuellement itti woon nañ yeneen xeeti poto yi nga xam ne euh, moo gën a baax parce que poto euh, yu bant yi dafa faral di yàqu wala muy maxe wala muy gaaw a daanu euh, donc problème courant mën na moo wax ne am na fa daal actuellement Touba Mboul bon bu dee CM itam am nañ ko alhamdulilah mais CM boobu ba tey mën na mu wax ne gannaaw yàlla pour ñu am sem ci ñun ñi la jaare jamono bi nekkee conseil rural Touba ba tey mën na wax ne danga ma tooñ ci PDS parce que Souleymane Ndéné Ndiaye boobu ba tey moo fexe woon ba sem boobu ñu am ko léegi sax Euh, pour loolu dans dans ce temps ci jamono yi waaw ñu ngi ciy sant yàlla parce que gouvernement bi di ko ci sant fii ne sem boobu tabax na ko ba mu ngi fonctionné bu baax classe yaa ngi fonctionné Euh, en tout cas Touba Mboul ça reste beaucoup à faire. waaw tey bu tëlli doon ñëw fan nga jàpp na fa lay jógee. ah loolu ça dépend ci hmm. ci ni ko état gisee. Hmm. parce que tali war na mën a jóge Kayel ñëw Touba Mboul dem Ndiéné Lagane tali war na mën a jógee Kayel ñëw Touba Mboul dem Daaray Serigne Saliou également tali war na mën a jóge euh, Euh, Touba Typ Darou Salaam Typ ñëw Boustaan euh, dem Touba Mboul dem Gossas donc état moom su ko neexoon bu ci jublu dama koy da décentralisé li ma wax lépp mu mu tali ko bu ko neexoon day ci jël benn voie boo xam ne day def étude am ne fii la fii lay jël. wala nga xam ne boog euh, euh, bu laajee sëriñ bi nga xam ne moo ci am solo ci lépp itam boo ko laajee moom dana ko déterminer ban boor la bëgg mu euh, jóge jóge fàq. jëm tamit kenn du tudd dëkk suñ Basiru te tuddoo daara alxuraan man la fa. daara daara daara moom man li ñuy wax ne bi may xale. Hmm. la ko jiitu sax daara day fonctionner foofu. mais maa ngi rappelé wu ne man bi ma gënee nekk xale dans les années mille neuf cent cinquante six cinquante sept. Euh, sëñ Abdou ak i Mbàkke yàlla na ko yàlla yërëm. Euh, sëñ Alaaji rakkam moom sëñ Basiru ak sëñ Bas Mbàkke mu sëñ Fàllu ñoom euh, jamono yi ma nekk xale xamoon naa leen ba ci sëñ Abdou Baaxe moom sëñ Masamba ñoo ñëpp jaaroon nañ ko sëñ euh, sëñ Mbàkke taaw sëñ Mahamadan mi magu sëñ Cheikh mi jaar na fa sëñ Fàllum sëñ Murtala sëñ Moodu Manfous bon euh, euh, également mënuma ko wax bari na yooyu yëpp mënuma ko lim bari na bari na sëñ Basiru moom sëñ Murtala waaw daara ji dafay fonctionner sëñ Abibu mu doon ko doxal doxalin wu rafet sëñ Abdou Mbacke imaamu Touba mm-hmm. actuellement doomam moo fa ne sëñ Bassirou Mbacke mi ngi bay ci waar woowu ba tey moom di ko doxal waaw ba tey la wàllu mbay nan la fa moom euh, nee naa la waxoon naa dëkku àll dañ fay bay di fa sàmm. Mm-hmm. dañ fay bay dugub dañ fay bay gerte tubaarkàlla dañ fay sàmm. malgré itam bëgg-bëgg yu bari itam tax na suuf si ni ma waroon a yaatootu ni ba tax na euh, mbay mi mën na ma wax ne ni mu waroon a yaatoo itam melatu noona loolu itam seetlu nañ ko ci wàllu état ñan ñoo fa gën def depuis Abdou ba ci Senghor ba ci Abdou ba ci Ablaye wàdd ba ci Macky Sall mi kenn ku ne dafay def temps kenn ku ne day marqué temps hmm. parce que boo mënee état da nga naan jamonoy Léopold Sédar Senghor hmm. seetlu woon nañ ne Euh, seko ONCAD yi teel nañ ko fa def mu di ko maanaam wàllu gerte yi fi ñu koy jëmmale moo xam magasin yi ak yu mel noonu teel na fa mbokk na ci dëkk yi fa njëkk am ba tey boo ne boo waxee loolu da ngay ñëwaat ba tey ci 1960. boo ñëwee ci 1960 ba tey yaa ngi ci Léopold Sédar Senghor. Mm-hmm. Euh, parce que mën na wax ne Touba Mboul 1960. ci la am dispensaire. Euh, astafurlah 1960 ci la am école. 1962 euh, mu am ci dispensaire. 1963 mu am ci marché. donc loolu lépp Senghor moo ko ci ci état am la ñëw. soo dee wax itam yeneen wàll yi boo ci jege woon parce que Abdou Diouf mi ngi ñëw 1981. Euh, boo ñëwoon 1981 ba ba ngay wuti 2000. bi Abdoulaye dañ ñëwee diggante boobu ak forage am na fi. dañu wax ne diggante parce que forage bi su fekkee sama mémoire baax na mu ngi ci euh, du sori 1988 81 87 du ko sori. 86 hmm. 87 ba tey loolu loolu defe naa ab Diouf Abdou Diouf la. Hmm. bon léegi itam boo ñëwee ci dem ci Abdoulaye Wade. da ngay daal di monté wu ci 2000 wuti 2012. courant bi dugg na effectivement kii bi dugg na CM bi euh, maanaam am am am sem dugg yëg yëg ne am nga sem itam mm. mais tabaxu guñ ko am na mais nag boo ñëwee ba 2012 wuti 2014 ci Macky Sall la ñëwee da wax ne tabax nañ fi sem sem mm. boobu maanaam mu ngi fonctionné waaw ci jamono Macky Sall mos en tout cas ñëw na ba ci biir ko commune bi mais jëmi Touba moom euh, jotu faa teg tànkam parce que jëtu jëmi Touba Mboul moom. kooku ma euh, ñëw na fa euh, lépp comment dirais je ah, non non pas Senghor kii ah, parce que c'est dans les années. tourné Mamadou fa njëkk a ñëw ci homme d'état hmm. Mamadou Dia moo fa njëkk a ñëw Abdoulaye Wade itam ah, moom ñëw na fa hmm. Euh, lool lool lool loolu moom yëg naa ko xam naa ko. maanaam bu la Macky Sall laajoon ne la mbul ñaar yi comme mën noo liggéey dëkk bi lépp jël lépp sart ba mu jeexandoo euh, ci benn jamono bu la laajoon ne la lan lan fa war a tàmbalee ñaata yan ngaw yan fonction nga koy wax. bu la ne woon non yow da nga ma bëgg wax ne rek lan mooy mooy mooy mooy priorité. première priorité mooy goudron bi ñëw tali bi ñëw. tubaab mu nekk en décentralisation waaw da nga ne ma yu gën a jëm. Ah, la ca topp mooy courant bi gën a yaatu. ñaar yooyu. ba ndox mi ñu neexal ko pour mën a def maraîchage ak yeneen ak yeneen ak yeneen. njàng mi kii ñu bàyyi ba ca kanam. non non non da laaj li gën a kii rek. njàng mi njàng non non non yëpp am yëpp am na possibilité boole ko. ñu ngi lay sant yaa wér-gu-yaram gaa ngi fi lépp a ngi fi. lan mooy sa kàddu yu mujj. di ñaanal Serigne Mountakha hmm. nga xam ne su borom defal nañ ko defal na ko ko. Hmm. tey mu ñëw ci daara mi nam Cheikh Moud Basir maa ngi ko ci ñaanal mu am ci ndam ndax fii ku fi nekk rek doomu sëñ Tuubaa def nañ li ñu waroon def lépp ci lu rafet neex na suñ boroom tey jeex jëlee na fi doomu sëriñ Tuubaa neex na ko mutti fi teg sët yi suñ borom dana dana sant sa sa sëñ Tuubaa yi nga xam ne soob na ko kenn ku ne nekk fi ku fi nekk kenn ku ne ni su jot a jaar ñëpp gis nañ tawféex yi ñu def ak lu rafet li ñu def ñu ngi naan kii fi nekk tey la la ñooñu defoon ñëpp mu mu def ko ci ful te suñ borom defal ko itam fan wu gudd may ko may ko tawféex may ko ndam ba ñun ñëpp ñu xàcc ndax sëñ Touba moom aw yoonam kanam rek la jëm du jëm gannaaw la ma cay dolli mooy di repré di sant bu baax mboolem population Touba Mboul di ñaan ñëpp itam ñu nekk am fidélité ci nekk gannaaw Macky sàll jàppale ko jërëjëf ñu ngi sant bu baax a baax Serigne Bassirou Diakhaté tey nu ñëwoon ci mbul dégg ngeen ko muy koo xamante ni yaakaar naa ne ku yàgg ku xam mbur la wax na ne histoire bi nga xam ne Serigne Bassirou moo ko sancoon Serigne Touba moo ko digaloon ginnaaw bi Serigne Bassirou mujj jox ko doomam ji di mun Mountakha mi nga xam ne moo di xalifa général de Koulit moom mi nag mooy chef de village ba am fa wax ak la nga xam ne moo di eh, jàngukaay ak fajukaay am na yum fa wax ne nag na manqué na loolu moo yëfu état la ñu ngi koy bàyyi ci loxoom yaakaar naa ne subarafkal la ñu sant ñëpp gërëm ñëpp Thierno moo nekkoon ci caméraman bi ñu sant ñëpp gërëm leen di leen jox daje ci seen émission ci beneen jataay ci ku wal mburu tudd dëkk du mu eegen paramtuy lambutuy wey bati agge go te way ka ɗum waɗa way mustawa amut la jamba way